yéen laay njëkk a ndax lii archive yoo xam ni ñun suñu jamono masawu doon moom su ngeen si ngeen demee jàng ko ba man ko di ko def yàlla ngeen gudd téye gën. jërëjëf fekk uh, nit bu yaru bu am diine bu ay waay juróom bu kenn yàlla ko yàlla yërëm te yeexee xale bu baax bu am kersa. bu baax bu bëgg way juróom bu baax waaye nag ndeyam moo mën a sëy yaagaa baax mën na jur sax bu baax ak seen baay bu baax bi nga xam ne maa ngi doon bokk sëñ Mbàkke soo mu bokk moom Serigne Saliou yéen nag ma jàpp man damaa faral yéen ndax yéen woon. Ah, mais maman euh, sama xarit la. mooy sama seetloo turandoo mooy sama xarit ba bañ koy ngénte papam da doon maye xam nga dollar yi. bu la ko mayee da nga yow de kii ni ma may baaxul ndeke booba dollar la moo xew xale bu mën a sëy bu am jom bu am dina foo dégg ah effacé wu yëpp mu ngi ci kaalaam mi ngi ci kuusa mu ngi toppatoo borom kër mi ngi toppatoo ay waajur yàlla na ko yàlla teg ca àjjana firdawsi nuroowul la xale yii de barke mu Mbàkke Muhammad fa mu jëm yàlla ko gën fi eh, juróom-ñeenti baas sax tuuti na ci moom bu yeggee ci suñu borom dina xam ne xale bu jigéen buy sëy day toppatoo jëkkër loolu rek moo am solo yéen waa média bi nag gudd leen fan ndax nun lii màggat yi ngeen ko defal ndax ñun suñuy jamono yi amul aloo daan ñëw ànd ak benn tubaab bu làkkee nga wax ko mu wax la bu ngeen demee ba am jom jàng ko ba di ko defantee noonu denc leen assuré rek denc leen rek on sait jamais man ngeen dem ñu leen euh, soo demaat ma nga doon interviewé démb day dee na waaw du ko ma ni dee na kooku day met te loolu ma dee bu ma war sa dee du ma de waaye jom ji ngeen am ba jàng lii ba koy denc ba jigéen ñi di ci bokk loolu dama leen ci félicité. mais rek. muñ rek moom xamul ci ko jël si ki ko jël si dañ ko yónni xamul fa nu ko yóbbu xamul moom ak man kan mooy ko ci topp takat doom ku nu jële ci néeg bi tudd rek nan la jële ci bitti dafa ci bànq yàlla na yeex rek man saa yi ma xëy maa ngi koy waajal sama yaay deen bu yàgg ak sama papa yàlla na yeex rek ngeen yàgg seen parents yéen tam ba tëral leen ba def lii ngeen ci def ngeen def seeni eh, eh, société moomal ko seen bopp man de vraiment am naa yaakaar ci yéen de. yaakaar naa leen de yaakaar naa leen. merci ah, beaucoup alors lan ngay wax eh, la yàlla jullit la ñu bokk sëñ Mbacke Soxna Lo ñu nit koo xam ne kii ci social rek lay doon kon bu ko yàlla tegee lii xam lu muy def. day muñ waaye muñ na nag ndax jurit la kullu nafsin saaxatin mawti kullu man alaya faani wa yabxi wa huwa rabbika si jëlaay wala kiraam amul ku ñuy génn ci néeg bi tudd la te dun la génn ci néeg bi yóbbu la ci armée dégg nga sama waxa ah? nun ma ngi ñoo tiit waaye nan nan nan yaakaar yàlla rek doom te ngeen ñaanal dee day man ragalu ma ko ndax xam naa ni ñi dee ñëpp foofa sax moo gën a war a fii ngénte yaa ceet yaa xew ya foofu sax la war a gën a mais maman ngeen ñu tàggatoo ndax ku nekk xam na ni sa kàddu dafay am solo lool ci askan wi euh, gis nañu soxna moom yi ci sutura bi nga xamante ni dafay bare ba yàlla suñu morom daal di koy jël ñu gis kenn ku nga xamante ni mën nañoo wax ni dafa xaw yi suturam wax li ko daloon wax li ko yóbbu ndax loolu rafet la ki wax feebaru moom yi moom yi ñooñu ñooñu dafa yaa mënu la ñàkk mhm. ñooñu dañ leen di baal ak Serigne Touba bi gis nga picc yow yow yow boo bëggee jàpp téeméeri picc mhm. tapiti bu yëngu ngay ko nii doo jàpp benn yëppay daw ñooñu dañ leen di baal waaw bu nu sañoon du nu mel noonu loo dégg wax ko di jàng wax di jàng journaliste bi ca mën a boobu expérience la yàllaa ko def ci nekk nga gis doomi géer doon géer doon góor mais mais journaliste lay man deret la c'est gens koy def ñooñu nan leen baal te démystifier leen leen a xëccaat ñu dugg ci société bi waxtaan ak ñoom dégg nag maa ngi dem yor leen dara lu ma jox. kon yàlla mu teg ko ci teg na ci. wala ku dugg nit ku ñu naw si sa. waaw yàlla def ko ñu mën naa si sa bàyyi ba attaay bi. waaw attaay bi. waaw mu nga rab ko si jilaay wal ci laal. non non non. jaaga jaaga am nga ko sa nekkoon dama amoon téléphone boo xam naa la mën a dem wala mën nga dem ba Ziguinchor loolu garaaw sama Samsung du leer su gënee lëndëm day gën a leer waaw damaa yaa si dafa gën a jàpp ko xam nañ xam nañ yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg daje